violence boobu c'est parce que dafa ñetti composant bi ko seq bi si njëkk mooy état bi nga xam ne moom moo war a arbitrer moom moo war a organiser secteur bi bi ci topp di investisseurs yi nga xam ne ñooy les opérateurs ñooy jënd yi seeni oto bi ci topp mooy les employeurs yi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi mm-hmm. léegi nag li tax problème bi di persister mooy ci war a organiser dafa seetaan ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a seq liggéey bi maanaam l'état qui doit wax na ko léegi li mu fi signé ci ay protocole ak convention li état def ci ay injonction par rapport à l'emploi par rapport aux employeurs kenn mënu laa wax mu toll mais bu fekkente ne état bi ko teg organisé wu du mën a xam nga sànq mi ngi wax ci wàllu formation boo gisee ñu nekk ci ay jafe-jafe ñoom mooy jël na référence jël na exemple sànq si Dakar Dem Dikk organisation bi nekk foofu noonu moo nekkul aftu te loolu nag dañoo teg benn organe boo xam ne pour mu gérer uniquement loolu la muy la CETUD moom war a organiser le transport urbain de Dakar képp ku nekk aftu tey ci CETUD nga dépendre CETUD a organiser loolu moom seetaan loolu man il y a 18 ans peut être 17 ans dans les années 2007 2008 2009 man maa leen doon formé au niveau de Castor centre de formation bi nekk foofu. Mhm. dañuy am ay programme de suivi éléments yi nga xam ne formé nañ leen da leen di topp un an trois ans parce que formation yi leen doon defal day am recyclage chaque année. Mhm. mais au bout d'un an koo ci woo dal naan maa ngi Dakar dem dikk wala mun la maa ngi ci benn société hydrocarbure. bàyyi ah, léegi Mm-hmm. nga defal ko formation jox ko attestation def ci moom lu bees léegi mu ñëw ci sa oto nga indi oto bu bees mu jàngee ci sa oto jàngi dawalin bu bees nekk nit ku correct nekk chauffeur bu am euh, base en matière de sécurité routière transport et tout ça déposer Dakar Dem Dikk parce que ñoom loolu lañ soxla chauffeur bu correct lañ soxla donc ñoom bu ñu formé dañ lay bàyyi yow nga jël recruter produit brut ba am produit fini Dakar dem dikk ñëw jël wala société yu mag yi fi nekk ci bénéficié voilà léegi nag opérateur yi ñoom loolu arrangé leen d'autant plus que ñoom ils se disent que ne dañuy francs par mois état accompagné wu ba noppi protégé wu ligne yi nga xam ne fa la tata yooyu daw parce que tey dama lay jox exemple ndaw mhm. da ngay jël benn ligne tata fu muy daw di nga fa fekk 10 clando yu fay daw waaw loolu tarif tata bi balaa muy fees clando bi 10 ma ñëwee bëgg a dem tata bi di fayeeku 200 clando bi di fayeeku 200 tata bi def 30 personnes clando bi def 2 per 4 personnes. 4 personnes clando alors que le légal te loolu kan moo ko seetaan mooy état bi nga xamante moom moo leen jox ligne parce que yi fi ñuy daw choisir ñu ko de aftu moom moo ne yow ligne 38 yaay daw fii ak fii. Hmm. ligne 42 yaay daw fii ak fii léegi nag bu la nee yaay daw foofu ba noppi protégé wul boobu problème am na ci ay yoo xamante ne dañuy def contrat. mais man dama nekk ci benn cabinet boo xam ne dañuy def étude suivi évaluation bi ñu defee enquête au niveau de AFTU am na travail yoo xam ne ñoom seen wàllu ñooñu ñoom ñoo bëggut aussi te defaluñu leen ko c'est-à-dire y hmm. am na ñoo xam ne am nañ contrat na ñu bëgg contrat te defaluñu leen ko am na ñu bëggul am na ñoo xamante ne defaluñu seen i employé mais li ñuy fay sax moo gën a baax. ñi la la la ko am contrat di am ki bëggul contrat aussi boo ko laajee dana contrat bi dafa may tënk parce que su ma liggéeyee 4 jours sama yeneen 3 jours yi au lieu ma koy toog Dakar mën naa dem dëkk ba bàyyi wala mën naa am sama benn calendrier wala mën naa def sama beneen activité c'est-à-dire dafa bëgg libre mhm. c'est-à-dire circuit bi moo nekk circuit boo xamante ne dafa laajaat une organisation séquentielle ci biir enquête da ngay gis sax ñoo xam ne dañ la naan man nekkatuma ci réseau bi mais xamee nañ la ci réseau bi donc yow boo xëyee mën nga ñëw ci benn garage boo xam ne xam nañ dafa yàgg nga fa dal bu amee benn chauffeur bu absenté mën nga ko remplacer maanaam journalier sax am na ci alors que secteur transport les textes réglementés dafa dàq loolu moom mm-hmm. parce que travailleur bi dañ ko war a protéger ni ñuy protéger investisseur bi mais côté boobu yëpp dafa xaw a dafa xaw a sooxe léegi nag pour loolu yëpp mën a nekkaat mm-hmm. tegwaat li ñu teg Dakar Dem Dikk pour man condition yi ñu teg Dakar Dem Dikk pour man war nañoo mën a woo les opérateurs de transport teg leen ko ba noppi exiger leen li Dakar Dem Dikk defal ay emploi mais ñu ne ak seen i emploi